par rapport ak euh, liñ ma sant mooy indi benn euh, analyse bu psychologique euh, ci wàllum divorce mooy tas donc damay démarrer ci benn tekki en tout cas am na waajoo xam te dafa tekkee sëy ak divorce lu xaw a xorom mais daf ñuy indi ci ñu xalaat ci parce que dafa ne sëy moom mooy lan sëy moom mooy ñaari nit yoo xamante ne dañu nekk di régler ay problème yoo xamante ne ñoom bu doon ñoom kase duñ ko am bu doon ñoom kase dund duñu am problème yooyu mu ne loolu moom mooy sëy mariage ñu ne ko divorce nag mu ne divorce moom mooy di euh, benn nit buy régler ay problème yoo xamante ne ñaari nit a ko waroon régler donc loo xamante ne daf ñuy appeler à ce que ñu xalaataat bu baax a baax ci wàllum sëy ak divorce sama communication bëggoon naa ko accès ci cinq points première bi premier euh, point bi moom mooy jeex jeexantal bi tas di def bi fase di def ci nit ki mais su may wax jeexantal yooyu dama koy indi ci wàllu émotionnel maanaam yëg-yëg parce que nit ki mënuñu ko dindi ci ñetti dimension da ngeen may jéggal nak wolof bi day xawa a metti tout temps mais ma ngi goor goor inshallah donc si nit si ñetti dimension lañ ko mën a moy yeg yegam ak xelam day nekk benn dimension biologique manam euh, animal dañ may dimbal donc biologique bi jëmmam ak social maanaam environnement li li li ko wër noonu la tënkee nit donc euh, bu ma jàllee ci premier point boobu dinaa indi léegi ginnaaw divorce lan mooy ay mbir yoo xam te nit ki war na koo moytu divorce bu amee ba pare yan mbir mooy xamante ne ñi euh, divorcé war nañ ko moytu troisième point bi day ñëw ci

Euh, jeexantal yooyu euh, fase bi am euh, ñu jeexal ko bu fekkee temps bi dinañ ko may incha allah ci benn expérience benn partage d'expérience boo xamante ne lu bëri ti ay sëy foofu la ñuy jaar ba jafe-jafe bi judd donc incha allah ñu démarrer ci répercussion maanaam ban jeexantal ci wàllum yëg-yëg lay am ci ñi ñi fase ñu tàggale ko donc euh, dañuy démarrer ci euh, de la tristesse à la colère lolu rek déjà daf ñuy won ay saut d'humeur parce que tristesse moy koy xol di ko yërëm bu aggé maintenant ba dem di mer mom moy jóge ni ci benn étape àgg beneen étape te loolu lu koy waral moy sentiment de perte bu muy am parce que nit ki ken duggul ci sey pour suba bon je dis de manière générale ken tëbul dugg ci sey pour ne suba damay divorcer donc kep ku dugg ci sey yéene bi ngay am moy tabax lenn li maintenant bu divorce amé bu bu bu tas amé lu ci bëri day am lenn euh, manam perte lay nek ci ci ku ci nek day am lo xamantene ne ngeen ko yaakaar ni bokk na sa dund mu dem yóbbaale euh, loolu

Euh, euh, souvent dafay am changement day am lu lu soppeeku loo xamante ni sa dund la parce que déjà ak mariage bi day am loo xamante peut-être les ni modérateur mu ngi ko wax la routine dafay am loo xamante ne day nous ni luy stable day mel ni loo xamante ne euh, maintenant divorce bu ñëwee rek dafay am loo xamante day chambouler sa dund changer carrément ce quotidien rawatina nak bu amee ay doom yu sosoo aussi c'est bon parce que déjà dinañ xol si kan la xalé di des fois ñu euh, euh, parent euh, papa ji mooy dem bàyyi fa xale yi si yaay ji mu xawa a doole di taaba taaba di xol ñu mi dundalé xalé des fois c'est le contraire mais tout le temps fay am chamboulement carrément le quotidien insécurité à culpabilité parce que Euh, mbir mi bu bul dalee sa kaw rek dafay mel ni àdduna dafa jaxasoo sa si yow donc doo amati ay point de repère ba ba pare pour la plupart du temps dafay am koo xamante ne mën nga mën nga dem ba jàpp ni yow am nga sabar ci li am parce que da ngay gis koo xamante ne day ñëw ci yow ne la dama divorcé mais da lay laaj da lay poser question yoo xamante ne yow koo tontu danaa man pour lan lii dal ma man lan laa def loo xam te ne waruma ko woon def wala lan laa deful loo xam te ne dama ko waroon def ay questionnement yoo xamante ne lay am moom si boppam du am réponse yi euh, divorce tamit day nekk source de stress bon d'habitude ñun nag lépp luñ dal rek dañuy waxi stress fekk nag euh, am na baat yoo xamante ne dañuy jegante mais ñu lu mel ni stress anxiété angoisse donc temps bi du ñu ko may pour ñu xóotal mais bu ci nekk dafa am nu ñu koy euh, ñu ko war a déggee pour mën a euh, définir ñun suñu état ban état lañ toll donc loolu xam naa dañ koy euh, leb ba beneen wala si question bu ñëwee incha allah sentiment d'abandon parce que tas day am ku ci nekk dem sa côté donc ak tamit trouble de comportement di nga. da ngay gis koo xam te ñun jigéen yi dañoo xaw a doy waar mën nga gis ñoo xam te ne dañuy toog di waxtaan ne xanaa gisoo di moom de bañ koo ba mu tasee sëyeen ba tey daal yu muy sol du nduróo wala yëre beeg euh, sër ba nduróowul fekk mu ngi si situation yu doy waar yoo xamante ne au ñu venir ko en de mais dañuy toog di ko waxtaan ba mbir yi àgg ci ay état dépressif dépression yu demee noonu donc ci ci loolu yëpp bu ñu xoolee dañuy xool ni émotion yi foofu. mën nañ wax ni dafa négatif maanaam émotion yu baaxul la mais am na cas boo xamante ne émotion bi foofu mën na positive ci divorce xam naa bu ma ko doon laajte fii euh, dina xaw a jël temps mais par exemple koo xamante ne dafa nekk ci sëy boo xamante ne dafa toxique comme ni ko léegi suñu sœur waxee alimat Sadia euh, koo xamante ne dañ ko may kuy drogué par exemple un toxicoman kuy mante wala mu yor yenn comportement yu violent yi di la dóor di la toroxal kooku bu génnee ci sëy bi soulagement lay am donc foofu c'est un c'est une émotion euh, plutôt positive donc soulagement lay am parce que dafa nekkoon ci benn spirale boo xamante ne yombul woon déjà mu mu génn ci te dina amaat euh, yaakaar ci dundam bi ñëw ci kanam donc ñu ngi ci deuxième point bi voilà ñu ngi ci deuxième point bi moom mooy lan divorce am na maanaam tas am na lan moo lan lan yan mbir yoo xamante ne nit ki waratu ko war na ko moytu waru ko def euh, premier point moom mooy bu mu jàppee mbir mi mais àdduna bu daanu ci kawam divorce dëgg la metti na euh, jafe-jafe yi bëri na comme ni ñu ko waxee léegi mais nit ki bu mu jàpp ni moom daram dootul baax

mën na yàq donc loolu la wax ni nañu éviter di dramatiser situation divorce benen bir bi nga xam war nañ ko éviter bu baax a baax moom mooy ay compensation malsaine lolou buñ koy wax moy dañuy ngay gis koo xamante dañ koy wax ñun en terme psychologique Euh, manger ses émotions da ngay gis koo xam day nekk ci situation bu doy waar comme par exemple nek euh, divorcé mais nga gis muy nek rek du suur la boulimie lay am en fait émotion mi lay nekk di lekk kooku dafa soxla soutien boo leen ko gisee bu leen kii de moom début ba mu tasee dafa foqale wala bu leen ko woyafal mais na ngeen ko dimbalew orienté ko mu dem si les spécialistes de santé mentale parce que sinon rek mën na doy waar beneen mbir bi mooy da ngay gis koo xamante ne moom lu muy fajee situation boobu mooy génn nekk divorcé moom mooy nekk accro dafay mel ni drogue ci moom ay tele film donc mën na toog toute une journée loolu rek mooy nekk euh, euh, activité kooku dafa am une addiction loolu addiction la drogue la écran mën na nekk drogue de ci même titre que ni nit di drogué woo wala euh, di màndi wala yu demee noonu

mo raw lum lay dimbali parce que benn plaisir bu ndaw la lay may nga foog ni mu ngi lay jàppale mais fekk loraange yu muy jur après day gën day nar a gën a yow situation de divorce bi nga nekkoon donc du la dimbale au contraire day yokku xar mi karaw comme on dit tout le temps beneen mbir bi moom mooy euh, ne pas considérer la relation comme un échec parce que tant que yang koy jappé ni man dama échoué ci sama mariage du la dimbale nga mën dépasser étape bob ni la koy dimbalé pour nga mën dépasser étape bob moy nga jappé ko une expérience nga ne lii lu jaar la jàll jang na ci lu bari xamna ci lu bari je sors du passé parce que jangat na ci maintenant maa ngi euh, entamer l'avenir noonu ngay euh la mbiri yi di la jàppale mais tant que yang koy jappé échec

day def tout le temps sport day dem bay teg yaramam loo xamante ne àttanu ko c'est comme si dafa nekk di euh, di di di punir boppam di euh, punir nu ñu koy waxee di ah waaw di lor boppam mel ni dafa am faute bu muy def daal boo xamante ne dafa dafay mel ni am na faute boo xamante ne def na ko baalu ko boppam léegi dafa nekk di fayantal di <laughs> di fayantal boppam voilà di punir boppam ci mbir moomu donc de même que régime strict manam ko da ngay gis koo xamante du lekkati comme fële boulimie la waxone ki mom day mel day bañ am yaram du lekk day day guerre bopam carrément donc yoyu ce sont des solutions extrêmes yo xamantene war nañ ko moytu ñu jéem wut le juste milieu euh benen bir mi moy ne surtout pas détester son ex manam ki nga xamni ne ko koog nga ak moom bu ko bañ sentiment de bañal bob da ngay xeex ak mom parce que tant que xeexoo ak moom du yomb nga dépassé batay étape bob. te euh, douleur bi ngay am ak ressenti bi ngay am métit bi ngay am sa xol nga li lay may nga surmonter ko moy nga jéem pardonner maanaam même bu féké def na la lu la metti yow da ngay fofu xeex ak sa baxane ba nga xamni dang koy djéggal mbir mi sinon rek bu fekkee yaa ngi ci ressenti boobu di di di ko di ko di ko xeex wala di ko bañ ci sa xol du yomb nga dépasser étape boobu. Euh, aussi beneen point bi c'est s'écarter euh, s'écarter de l'esprit de vengeance mooy ci même lignée la da ngay gis koo xam te day divorcer nit ki mais day ñëw ci yow ne la man vraiment damay nekk di gëstu ci ay mbiram di xool lan laa ko mën a yàqee kon nga nga gis ni kooku étape bu mu toll sori na parce que bu fekkee yaa ngi divorcer nit ki tas ngeen ku nekk yaa ngi dund sa dund yow yaa ngi passé tout ton temps di xool ay mbiram di xool di laajte di gëstu ay mbiram di xool moom faiblesse am pour mën ko yàq soit par des vidéos wala si réseaux sociaux yi wala noo noo koy yàqee yaa yow loolu du la dimbale yow en tant que ki nga xam ne war nga dépasser étape de divorce boobu de même que di jëw nit ki nekk ci yenn situation yoo xam ne kenn du la laaj sax sa problème mais foo dem yaa ngi toog di wax diw ne nii la mel nii la ma def nangam nangam loolu du la dimbale ci nga mën a euh, dépasser étape boobu beneen mbir bi mooy ne pas refouler sa douleur gis nga ñun ay nit lañ yor ay yëg-yëg donc nit ki bu tollee ci état de faiblesse su munul am su fekkee mën na am ci entourage am koo xam nit ku wóor la sàmm làmminam mën ko dencal ay secret na dem ubbeeku ci kooku génnee les nekk ci xolam dafa bax se vider bu fekkee amul lool ci entourage am wala wóoluwul mu dem ci des spécialistes que nous sommes en santé mentale mu dem lacc un accompagnement psychologique ñu mën ko dimbalé ci étape bo té likoy gëna yombalal mu mën dépasser étape de euh, situation de divorcé bo mu nek xam nga metti na moy mu def son deuil xam nga bu ñuy wax dëj ku dee lañ koy defal mais dafa am dëgg maanaam moo divorce parce que dëgg boobu kuy dund nga koy defal mais en fait nekkatoo leen looloo tax mu mu a point ne pas s'accabler des reproches maanaam yow bul ni bul est-ce que je parce que déjà islam sax daf ñu koy tere bu mbir na ngeen ne loolu la loolu moo neex yàlla mais bul ne est-ce que su ma defee woon nii lii dina am est-ce que su ma di nekk ci est-ce que yooyu day gën a yokk sa état de stress day lay gën a dugal ci situation boo xamante ne du yomb nga génn ci euh, mais euh, ne pas faire euh, des des reproches taxul ba tey nga mën a situer sa responsabilité ci mbir mi am parce que loolooy tax nga mën a xam man de une prochaine fois lii duma dalati ndax dinaa fexe

sommes tout le temps ba nit suñu amul soutien bu war nous dañuy ni ci part de responsabilité pour la plupart du temps dañuy japp ni ñom ñoo parents yi divorcé loolu benn point benen point bi mom moy désillusion moy dañuy dañuy dañuy jaxaso complètement duñu xamati lan la leen parce que déjà schéma familial bi ñu eh, euh, stabilité bu ñu bu ñu bu ñu nekkee ci biti wala bu ñu amee lenn lu metti ci biti ñu mën a làq làqatu ci seen biir kër wala ci seen environnement familial loolu dootul mën a ci nekk dañuy nekk ñoo xam te ni dañuy mel ni ñu leen bàyyi ak àdduna ñoom noonu la ñuy seen bopp te sentiment boobu day gën a metti bu fekkee ni divorce bi nekkul à l'amiable maanaam defee ñu ko ci anam yu gën a rafetee maanaam dafa nekk ay xëccoo wala ay xeex am ci wala ay kàddu yu ñaaw yooyu dafay gën a affecté xale yi euh, ba tey ci li leen di affecté day nekk ay mën na leen pousser ñuy am ay sautes d'humeur da ngay gis xale yoo xamante ne même ci au niveau des écoles des fois ñu wooñu ñu yu mel noonu da gis xale yoo xamante ne dañuy violent dañuy nekk ñoo xam te def lu mais buñ ko ba ci en fait seen papa ak seen wala oh, wala dañuy en fait seen papa da daan dóor seen donc mbir yu mel noonu ay irritabilité récurrente xale euh, même école mënu ko fa comprendre cadre comportement fekk moom appelé au secours ci ay mais nous ñi comprendre wu ñu ko dañuy ne bi xale bi dafa yaradiku xale bi dafa nangam dafa nangam fekk moom mu ngi woote pour ñu dimbali ko ci ay comportement am parce que xale noonu d'habitude lay lay lay manifesté woo lu ci bëri dina dem ba indi rébellion nga gis xale boo xamante ne ñeme na wax euh, mag ay kàddu yoo xamante ne ni kenn du ko comprendre wala mu nekk koo xam te ne day tëju carrément ñu naan xale bi de ku yaru la fekk mu ngi denc ci biiram ay musiba yoo xamante ne

Euh, université bu Carnegie Mellon bu États-Unis moo ko def dafa wane ni xale yi nga xam ni euh, seen waajur yi dafa divorcé dañoo séparé ñooñu euh, dañuy am risque bu mag ci ay feebar parce que seen immunité système immunitaire dafay nekk lu xawan naxas naxas comment dire nasaxal nasaxal voilà day xaw a lu lu lu euh, le faible voilà le faible du amati doole voilà du amati euh, par rapport ak feebar yi nga xam ne euh, si donc dañuy ne dañuy terme bi dañuy voilà source de problème de sentimentaux xale yooyu en général di jóge si parents yu séparés pour la plupart ñoom si seen bopp problème mën a li euh, euh, relations sentimentales loolu daf leen di topp ba ni ñuy magee sax dañuy mel c'est comme si bu ñu liyeewoo kenn am euh, relation sentimentale bu dëgër dañuy mel dañuy ragalaat loolu éviter donc loolu bu ñu leen ci aussi et conséquence dem ba ci échec scolaire donc mu dem topp leen ba au niveau de l'école du ñu am problème ñuy am problème de concentration désintéressement des cours cours yi duñ ko mën a suivre même da ngay gis xale boo xamante ne euh, këram da lay wax ni mënuma fa jàng mënuma fa am dal boo xamante ne damay jàng parce que tout le temps sama papa sama yaay ñu ci ay wax ci ay xuloo wala ay cadre yu demee noonu donc loolu moo interpellé ñu au au premier niveau ñu ci beneen point bi. ñaari ci des waaw donc ñu ñu jeexalee ci stratégie et attitude pour faire face donc yan euh, taxawaay la ñu a am gannaaw bu loolu yépp amee nan la ñu mën a taxawee ba nga xam ni euh, répercussion yi li war dal suñu du dal suñu kaw moom mooy soutien bi ma doon wax soutien émotionnel et social lu am am solo la déjà ñu ngi ci euh, société boo xamante ne yombul des fois yow yaa yow sa bopp da ngay bëgg fàtte li la dal mais nit ku ñëw da lay laajaat waa yow sa sëy bi moom lu mu demetee dala ciy indiwaat mu nekk loo xamante ne yomb ñu nekk ci société boo xamante ne dañ lay wax lu tax marié gu lu tax amagoo doom lu tax lu tax lu tax tout le temps nit ñi ñu ñu ngi ci liggante problème nit ñi donc soutien émotionnel et social moo la mën a jàppale ba nga mën a dépasser étape boobu une thérapie thérapie nag bu ñu koy wax ci une spécialiste on est un spécialiste de la santé mentale nga ko mën a amee des psychologues ngeen dem ci euh, ñoo xamante ne loolu mooy seen liggéey ñu mën leen indil euh, euh, accompagnement bi wax communication bi soxna Alimata Sadia ñëw na ci lu am am solo la c'est le fondement de la société et de toute relation d'ailleurs lépp bépp jëflante rek dafay euh, tegu ci communication communication boobu il faut nga mën ko def ak ki nga xam ne moom nga tasal moom nga séparé wu mu nekk communication boo xam ne day honnête ak sincère ngeen wax ci ak say doom tamit il faut nga ramener niveau bi ba mu toll ak ñoom waxtaan ak ñoo xamante ne ñoom loo ne ni day ubbi xel comprendre mën ko dépasser sinon rek ay euh, jafe-jafe lay jur euh, beneen bi mooy autocompassion lu lu pour la plupart du temps ñi nga xam euh, surtout si jigéen ñi dañuy xaw a lu xeeb seen dañuy ñu ñu c'est ce dafa am solo il faut nga réconcilier wu sa il faut que nga aider nous une attitude très bienveillante donc de la part de soi-même am euh, donc lolu mbir bi bu je pense donc juste pour ñëw se partage d'expérience dafa am benn waay boo xamante ne dafa ñëwoon ci dafa jaaxle si néegu sëyam ñëw daal di ne ah man de dama foog ni soxna si faa mu wàcc ko mu am benn borom xam-xam bu mu ko wax noon homme sage waa ji na ko lu tax mu ne ko man de gis naa ni euh, du reetaanatuma su ma ko xoolee du ma reetaan su ma euh, ñibbisee day mel ni yëgu su ma wàccee liggéey agsi si kër gi day mel yëgul ni sax maa ngi fi moom xale yi lay toppatoo maanaam amatuma benn mbir bu may wan ni moom suñ mbëggeel des na suñu diggante après euh, boroom xam-xam bi lu mu ko wax dana ko léegi est-ce que yaa ngi fàttaliku bi ngay dem di ko ñaani wala bi nga koy labat yan dikk nga ko diggoon mu ne ko loolu yàgg na de mu ne ko mais fàttaliku rek lu am solo mu tax mu toog toog toog mu ne waaw am na lu ma ci fàttaliku mu ne ko léegi dama laa ñaan nga dellu sa kër avant nga nga koy wacc dellu sa kër digg yooyu noonu nga xool lan nga ci deful nga koy def mais bu mu demee këram mu commencé ñëw déjà di jàppale ndaw si comme ni ko Alimata Sadia waxee léegi si liggéey kër gi commencé di ko jëndal ay petit cadeau ay mbir yoo xamante ne jigéen di koy bëgg mais tuuti rek waa ji boroom xam-xam bi moo ko mujjee woo moom daa fàtte waa ji nga ko ah gisaatuma la de mu ne ko parce que sama sama mbir dafa saafaru donc pour wax ni loolu lan la ñuy jàngal mooy ñu des fois dañuy doxalee nenn yi bëgg résultat bu ñuy doxalee nenn gis ñu résultat pourquoi ne pas changer suñuy méthode pour gis résultat donc loolu laa bëggoon indi ci ay euh, leeral di jaajëfal bu baax a baax. Euh, maa ngi sant yàlla bu baax a baax di sant yàlla laay wax ndax dama jëriñu ci kàddu yi nga xam ni dégg naa ko. macha allah xam naa comme ni ko Oustaz waxee rek da doon jar thèmes yu bëri am waxtu woo xam ni seen borom day gën a développé bu ko defee nit ñi mën a gën a jëriñ dëgg yàlla man ma danaa fi lu bëree bëri loo xam ni njàng mu mag la ci man yenn yàlla fay ñi surtout soxna yi seen wax am na solo bu dee lu jëm si laaj bi soxna si laaj léegi nag mbokk yi ñu dégluwaay euh, bi jiitu mooy comme ni mu waxee xale bu jigéen bi borom këram daf ko dóor bu met dem seen kër léegi ci lii loolu la wax ne moom doyal na daa bëgg génn ci sëy bi comme moom ni mu waxee mu ne ku góor ki moom itam dem na doyal na waaye kii da koy joxaat la mu li mu ko joxoon léegi xale bu jigéen bi wax ko ni ko balaa ma la jox li li li nga ma joxoon mais itam ni nga jële ci man da ma koy delloo loolu waxin la day laaj dégg euh, xam naa loolu lu nekk lay nekk mais comme ni mu ko waxee nag ak fi ñu doon waxee ñoom dañuy wax ni diine li mu wax mooy ku jigéen ci sañ nga génnaat ci sëy bi bu dee moom moo doyal moo doyal sañ nga génnaat ci sëy bi jël xaalis fay pour génn ci bi dañu bu fekkee ku góor gi nag moom du moom moo moo bundu xatal moo sonal ndaw si moo ko xatal ba tax ndaw si bëgg a dem bu dul loolu lu mu jël ci moom dagan na mu delloo ko mais bu dul loolu lu mu jël day aay ci moom léegi nag foofu nag am na tuuti lëj-lëj am na tuuti sew-sew te ndax dañuy compté dóor yi waa ji dóor ndaw si ndax dañuy koy compté loolu ak xatal la wala déet ak dóor yi yan façon dóor ndax da koo dóor dóor yi Abdullah ibn Abbas xam ne daan socc lu koy dóore wala koo dóor dóor yi nit ku soxar loolu yëpp leen beneen jàngat lay nekkaat mais diine daal bu fekkee jigéen gi bëgg naa génn bi sëy bi te góor gi pare woon pour génn ci moom moom mën naa joxe nañ ko la joxoon wala lu ko waa ji laaj bu fekkee d'accord na ko joxe <coughs> te te sëy ba tas waaye ci condition moom mu bañ a joxe lu ëpp lañ jëloon ci moom xam naa yenn saa yi am na foo bu ñu fa yeggee moom xanaa demaat ci kanamu yoon rek bu doon même bu doon yoonu diine la mu àtte leen mais beneen du fadlaa beneen laaj bi mooy comme ni mu ko wax koo xam ne dañu dañ kaa fas dañ kaa forcé mu fase doomam mu fasee jabaram borom xam ne dañuy wax ne talaaqul mukrah lañ ne gayru waaqi yéen def saa wax fii iglaq iglaq dañ mooy igra mooy forcé maanaam fase buñ la forcé nga fase moom fase diine nangu maanaam diine day bañ moom fase du mu reconnaître léegi nak mu dess budé xalé bi dafa ragal papa ji mu ni ko faseel sama sa jabar ji wala ma yow dogoon ñu ànd ak ba tax mu fase da ko fase ngir ñak pexé bu ko fasé ndaw ci dem yi dem dañ jàpp ne sëy bu jeex rek mais ci bu don ci bët bi lañ koy wax dañ ni ku ku ñu forcé nga fase fase momu mu du fase mu dog ci diiné waaw kay la talaaka fi ighlaq hada xadis talaaqul mukrah itam ulama yi dañ wax ni kontul mo bayatul mukrah ñoo bu dine di jappé nit manam koku bu de àddina demoon ba ma gisat soxna man sey jot bu ko nexé muni ni mi du won fase boba nak comme ñun suñ sodé ni société ni mu tëddee day naqaree ni jël jigéen mom bo xasee dégg fase nañ ko rek bu bobu boobu sam dem ëlëk boo ko jëla dina metti wallahu taala alam maa ngi sant nak assalamu alaykum wa rahmatullah barakallahu fi ndax dimbali eh, xam ne waajaloon nañ ko ba bind ko lu ci bari génn na ci contribution yi tënk bu ñu tënk ba mënuñu ko génne eh, ñi doon contribuer génne nañ ko alhamdulilah eh, xëy na am na lu ci des loo xamante ni boo liggéey bu ñuy organiser bu mel nii may ñaan li ñuy jox intervenant yi mu gën a temps bi gën a xaw a gudd ndax euh, li ñuy wax li ñuy débat dafa nekk loo xamante ni lu am importance euh, di digal waajur yi jigéen yi fi toog yëpp ñuy waajal seen doomu jigéen yi ci néegu sëy di leen xamal naka lañ fa war a nekkee di leen xamal ni sëy du lépp a neex xëy na mën na neex ci mën na neex comme ni ko suñu imam Mamadou Kassé waxee mais du lépp du ñëpp amna ñoo xamanteni ni sëy bi dina am lu ci neex dina am lu ci naqari ñi ci waajal seen doom yi xamal leen li lii muñ moo la ci jàppale ak delloo sa bopp sa borom subhanahu ak yaakaar fay boo xamante ne dina la ci fay ëllëg comme jaamu yàlla la ñu ci waaja suñu doom yi euh, bu njëkk ba loolu bàjjen yi la woon ñoo daan toog tiim seen doomu càmm ñi di leen wax di leen wax mais léegi bàjjen def naa sax bàjjen yi tant lañ leen wooye bàjjen moom amatu mais yaay yi nañuy waajal seen doom yi lañuy euh, nañ leen xamal la leen xaar si néeg bi sëy euh, góor ñi aussi góor waaye jigéen góor ñi tamit nañ jàpp jigéen ñi bu baax xam ne di leen boole dafa rëy di leen boole dafa nekk loo xamante ne du caaxaan lu dul caaxaan nag loo xamante ni fay yàlla da ci dafa war a nekk loo xamante ne lu ñu sellal la deme ci ak yéene deme ci ak euh, gëm yàlla bu ma sëkk yal yàlla jàppale ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulah. wax. <coughs> ñu sant yàlla bu baax teewee ci activité bi ak euh, jàngat yi ci am yëpp jëlee ko fi. donc euh, kàddu sant la rek benn mbir bi bu ñu bëggoon soulever mooy yaakaaroon nañ ne débat bi dina gën a neex nii quoi waaw parce que comme diine débat la diine bi ñëw la mais débat bi dafa xaw a tënku trop te comme ñëw ñu woon pour jàngale dañoo ñëwoon pour échanger donc indi mais tamit jëlee fi mais alhamdulilah am na lu bëri lu ñu fi jëlee mais pour une prochaine fois ñu xool rek ñuy organiser wu ba nga xam ni euh, assistance bi dinañ joxe seen xalaat bi di gën a euh, euh, yaatu daal voilà loolu laa amoon lu ma doon wax merci beaucoup.